Euh, sëñ bi euh, dernier message nga réservé ko exclusivement aux jeunes parce que yéen doon ngeen ko doon wax Euh, professeur euh, jeunes yi ci euh, première ak deuxième vague bi ils étaient pas très atteints mais ñoom ñoo doon jël maladie bi di dem di ko wàll les patients les les les parents nga xam ne c'est des sujets âgés tey jeunes yi mbir maa ngi leen di laal waaye tamit am na ci jeunes yu bari yoo xam ne ñu ngi mettre en en danger la vie de leurs parents à cause de leur inconscience di nga gis terrain de football yi fees les plages là les les lieux de commerce boîte de nuit aux euh, ça euh, lan euh, ngay wax jeunes comme dernier message. waaw pour man bi seen vie la ñuy mettre en danger ba pare avant de mettre en danger la vie de leurs parents te comme doom mu ne yaakaar naa ne war nga mën a protéger tamit say waajur kon ni ñu ko waxee rek jàppoon nañ ne affaire bi du luy sonal jeunes yi mais gis nañ ni jeunes yi da gën a sonal si jamono ji ñu toll nii te tamit ñu bàyyi xel tamit ci per fi ngay defee test yi dafay bëri nit tellement que ne foofu nit sax mën na faa contracter virus bi mais nañu bàyyi xel ne le virus est là virus existe dañu gën a jëlaat seen matuwaay bàyyi caaxaan bi bàyyi football beeg soirée soirée yeeg làmb yeeg yooyu yëpp ñu teg ko fi mu nekk nii àndandoo booloo jéem a xeex. pour liy jóge fi encore une fois jàppale suñu vaillant médecin yi jàppale suñu corps médical bi encore une fois parce ndox yi ñuy naan du manqué dara du manqué du añ du ndékki du reer mais encore une fois parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di nettoyer wax dëgg yàlla mm-hmm. li ma gis ci ci ci corps médical bi fekkee ne gars yëpp Sénégalais yëpp mobilisé na woon bu mobilisé woon topp seen gannaaw. Mm-hmm. feebar bi léegi mu jóge fi waxuma wàññeeku mais léegi mu jóge fi. dañu lay bàyyi nga noppalu. jërëjëf. Euh, di la ñaanal rek nga recouvrer euh, la santé et que votre message soit bien entendu euh, par les destinataires parce que yow yaa gën a nekk situation boo xam ne mën nga joxe des leçons parce que dund nga ko ñu lay ñaanal jàmm et puis di la bàyyi balaa ñu lay gën a sonal jërëjëf donc ba suba merci beaucoup